والقلم وما يسطرون mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu gannaaw yëgle bu yaatu bi ñu amaloon ren jëm ci jongante mbindum alxuraan bi ñu baaxoo amal at mu jot tudde ko yaatal mbindum alxuraan C3S moo yëgal ñépp rawatina candidat yi jotoon a déposé seen bind ne dafay ajandi concours boobule ba yeneeni jamono li waral lu ni mel nag moo di tolluwaayu mbas mi di coronavirus lëmbe àddina te néewal jotaay yu xumb yi bokk ci li koy xeex ba waral ñu jël bile dogal c mi ngi fàttali ne warteef la ci moom mu sàmmanteeg yile dogal bàyyi ko ci waa kër muy xamal candidat candidat yi jotoon a bindu ne déposé yi yépp agsi nañ te saa yu ñu jubluwaatee ci weer liggéey bi daañu woo mbooleem ñi jàll ci xaaj bu njëkk bi comme ni ñu ko daan defee c ngi ñaan ci barke alxuraanul karim sunu borom jële fi mbas mi ci lu gaaw asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu